asalaamaaleykum amis téléspectateurs bu Torino Média TV maa ngi leen nuyu di leen siyaar leen wax ne amati naa ak contentement eh, di leen présenté seen émission bi xam ne mooy nañu gisee eh, boo ko déggee nag képp koo xam ne da ngay ndaanaan rek daañu la seet ci waxtaan ak yow di eh, nag ñu ngi ci deuxième mois de ramadan ci koor gi ñu fekk tey benn ndaanaan boo xam te ni kenn doot ko présenté ci côté théâtre waaye ci côté téléfilm mu def fi lu bëree bëri tout ah maa ngi lay seer sama ci loo ne. waaw nekkuñ ci deuxième mois deuxième jour de mois de ramadan lañ ne. ci deuxième jour de mois de lañ ne ñuy ziar ñëpp di nuyu Sénégal yëpp vraiment di ñaanal ñëpp jàmm ramadan bi ñu dugg muy weeru koor gi ñëpp euh, dugg si bisimilah rahmaani rahim ñu jeexal ko ci alhamdulilah rabil alamin waaw chaîne bi rek yàlla def ci xew lu bari te gaa yi xaar ma fi. macha allah loolu mu wax am na solo lool tey euh, pour brefin rek euh, boo ñu wax kan mooy Pa Nice kan mooy Pa bon Pa moom benn gaañ la boo xamante ni ku ku ku ku ku ku daal ku amul benn problème. ku dund non stress koo xam yàlla da koo xiir mu bëgg théâtre di ko def vraiment di ci di ko def daal comme à l'aise sant ci nii di ko def sans sans gêne sans rien du tout yaa ma gën a xam waaw. mën nga xam ban année nga dugg ci li nga xam ne mooy théâtre. waaw anam théâtre nag bu ma ci duggee bon yàggul yéen yàgg yàgg na 2017 non 2007 2007 2007 2008 laa si dugg waaw vraiment man nekkoon si bon ba tax man li mu dugg théâtre mën naa ne samay ñaari booy yu dëkk suñ ko la xam nga damaa neex nag li ma gis ni damaa neexoon de neexatuma léegi ba ma defee théâtre dafa mel sax damaa def théâtre neex neex gi newoon ci man wàññeeku mais gënoon naa neex nii jàmm gën gi ma dëkk xam nañ ma sama ASC defoon na joué woon na ñebetaan ñu am problème mu kuy joué théâtre quoi léegi suñu wul zone bi dañ leen di dagg soixante quinze mille. c' était la première fois ma def théâtre man te boobu jàngu ma ko def ma ko dara mais dama neex dama am dama maanaam xam nga ñun yëpp ay comédien lañ. c' est boo ko yeewee rek mu yeewu ci yow. ma def ko vraiment après nag sama booy gis ma nag affaire boobu neex la ñu topp ma nag kañ dem defi théâtre am na gars yi nekk fii. boobu lees ay mag sa mag ak ñoom Leyti Fall ak lees boobu ñu ngi doon def théâtre dëkkoon ko de Sicap Mbao bi waaw ñoom nag à partir de si ñoom laa defee duggee li nga xamante ne mooy théâtre quoi boobu lees moo nekkoon foofu après jëmboori mi sama gaayan bi jëmboori peut-être bokk na bokk na si ñu ma njëkk defandool théâtre ak beneen boy bu ñu naan Pape Sagna waaw daal bokk na si ñu ma njëkk defandool théâtre fii ci Sénégal waaw waaw ba tax na loolu am na solo leeral boobu noonu pour ñi nga xam ne xamuñu woon euh, ki nga xam ne mooy Pa Nice fan la commencé théâtre ak kañ la dugg ci théâtre loolu dafa am solo loolu pour nit ñi gën ko xam mën nañ xam sa diggante ak waaju waaju baax fan ngeen xamante waaw waa ju baax nag vraiment moom ñu ngi xamante larkos pikin arkos Pikine waaw waaw mu nekk moom itam ndeysaan ku baax ku ku ku ku ku kenn du réglé parce que xamul tax dañ ñëw ñu nekk ndo arkos ñu nekk arkos ay artistes yu bëri mu gis ma ne ma daal dafa bëgg liggéey man dafa am envie liggéey ak man ndax dafa maa sentir. vraiment ñu dem tournée ju théâtre bi nga xam ne mooy waaju baax bi à partir de là daal vraiment la ñu gis ni ñun ñi am nañ complicité te affaire yi amoon nañ facilité jouer mu dem vraiment loolu daal foofu la à partir de foofu daal Arcos Pikine daal la nga xamante fa lañ jàppante te ba tey vraiment macha allah waaw. ñu bëri ñu ngi leen ñu ngi leen ñu ngi leen gën a ràññee à travers yenn vidéo yi nga xam ni yow ak waaju baax jot ngeen ko def. Mm. vidéo yoo xam te ni da ngeen daan génne ay kàddu yoo xam ni. ñu bëri <laughs> non man man mun a ko rafetal am problème mais yow. ba tey. rafet na sax saaga. pourtant Sénégal la pour nga dugg fi kër nii te duñ saaga ak moo raar. mais ak yéen nañ koy waxee. no parce que ñun ni ñuy saaga la façon bi ñu saaga sànq bi ñu toog fii di waxtaan avant ñuy commencé kii bi du maa ngi la koy expliqué naan la ñun tem lañuy teg saaga si ñun suñu façon de saaga bokkul ak ñi di saaga nii parce que ñun bu ñuy saaga ci tem la saaga dañuy xool nit def na lii te lii jaadu lii lislaam bokku lii sariya bokku lii du yoon ñu koy bàyyi ci réew mi ñu saaga ndey kooku lu leer laa lay wax ci noonu lañ daan saaga maag waaju baax dañuy xool ni lii kat nit ñi jël nañ ko te yoon wi baaxut par xam nga des fois gars jël ay jël ay wax yoo xamee nii waruñu ko kii des fois waruñu ko comme xam nga am na benn wax ju ma waxoon na ko waaju baax lu tax bu ñu def émission ngay gën di jongo mu saaga ma tey nga boobu noonu yooyu noonu nit ñi en tant que góor ñu naan la da ngaa ma du yëfi góor ko a baaxut waaw ñun nag yooyu lañ doon défendre des yooyu lañ doon défendre léegi nag bu ñu demee ba suñu yaram tàng nag ah dañuy xorom nag dañuy saaga sa ndey moom amul nañ dem ci ñoom waaw amoon na sax ay rumeur yoo xam ne jotoon na am ay ay yoo xam ne jotoon na mhm. seen diggante yéen ak ki xam ne mooy Assane Assane mhm. saaga yooyu dafa doy waar. non Assane Diouf non Assane Diouf moom ñun saaga wala ñun de Assane Diouf ñun ñoo gis ne moom mu ngi saaga ay kilifa ñun dañ doon ñun dañ doon jaat ak moom parce que boobu dañ bi bon itam instant nag mu ngi fi Sénégal vraiment ñu ngi koy ñaanal jàmm suñu gaañal amul benn problème ak ñun te boobu tam amul benn problème ak ñun mais ñun ñoo nekkul koo xam ne ñun ñun on est des ñun dañ doon gis kenn kuy def loo xam ne lu bon la ñu défendre ko parce que gis nañ ne mu ngi saaga ay ay ay président di saaga ay ministre di saaga ay ñoom Youssou ku ne mu saaga di wax wax ñaaw ci ay nit ñoo xam ñu gis ne nag Assane Diouf pourquoi mu nekk fer di saaga léegi comme ñun tamit suñu émission yi ñu def dañuy saaga ñu ne ko nag ñëw ñu jaamaarloon depuis da a saaga kay tey saaga ñi ñu ngi nii kaay saagante ñun ñi di saaga ndax ñee duñ ko saaga Macky Sall du ko saaga Youssou du ko na la woon mais vraiment amuñu benn problème moom amuñu woon na fan si woote <laughs> ah, ah, ah. <laughs> foofu sax foofu sax laay laay laay euh, commencement par soxna si nga wax parce que for naa ci wéyu béy ñu ne soxna waaju baax ak soxna Panaayes am na lu ñu luñ bokk. waaw non sama soxna bu njëkk. waaw xam nga mën naa soxna nag. mais ñu dëgg tàggu mais soxna bu njëkk rak soxna waaj baax xam nga waaj baax moo sama digganteeg moom caaxaan kiiwu ko ndax vraiment dañu ànd di liggéey mu jël rakk soxnaam may ma ko. franchement mu jël rakk soxnaam may ma ko. waaw kon kooku moo tax man chaque jour waaju baax bon suñu diggante day gën a rafet. waaw dara mënu koo ñaawal te dootu ko ñaawal ba ilaa yow mi diin nag waaw parce que dafa def lu rëy rëy jël si ko soxna soosu tamit tuddee ko doom waaw vraiment mu jàpp ci loolu def te sëy boobu moom bokk na ci ñu ko gënoon kii waaw mais nag xam nga jàll ak jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaw yàlla peut être noonu la bëggee woon sëy boobu amul woon benn kii nag xam nga peut yàlla noonu la ko bëggee woon mu demee noonu ma beneen sëy maa ngi kontaan maa maa ngi nekk si jàmm maa ngi dégg sama tenkew te moom it yaakaar naa mu ngi dégg tënk moom ba tax na loolu leer na tey bu ñu bu ñu gisee tey maanaam li nga xam ne mooy sketch théâtre yi nga xam ne mi ngi mm. ci li yi yaam waaw mais man du ko dàq quoi parce que xam nga ñun tamit aussi ñun Sénégalais lañ quoi te xam nga ñuy dem di seetaan ñu novelage yeeg dem di seetaan yeneen yi di déggaani te ñu war ko mën a def fii suñu réew mu am ay ay potentialité yu fi nekk ay doomi sénégalais war ko mën a def di ko jox sénégalais parce que ñun olof la ñuy làkk ñun ñëpp ay sénégalais lañ olof la ñuy làkk ñenn ñi bambara la ñenn séeréer ñenn son xulee lu kenn xam la ñuy làkk mais képp ku làkk boo mënti nekk dégg nga olof tuuti te kon théâtre yi am ci ci ci chaîne yëpp ak ci télé yëpp ay wolof lañ ciy làkk loolu nag pour sénégalais pour seulement koor gi ni bu jot xam nga koor dafa bëri stress bëri coono bu nit ñi wooree ba ngoon jot buñ toogee seen saal coono bi mën a wàcc ñu dindi stress yi maanaam reeloo leen def ay théâtre yoo xam ay comédie la kaf ak ñoom reeloo ñoo nit ñi seen yenn coono yi wàcc seen yenn xalaat yi tamit wàcc fara vraiment dama lay xamal dara nag artiste comédien caaxaan fay ko de ndax da ngay fekk nit ku nekk ci problème bu énorme problème bu garaaw ci diggante bu gàtt diggante 15 minutes nga fàttaloo ko problème am yëpp mu concentré wu ci yow loolu artiste ku mën muy lu am solo nag muy loo xam ne ñun dañ koy def xam na ni ñun parce que ñun damay sentir ne maag waajo peut-être ñu ngi def ay émission di saaga di kii mais ay kilifa dañ ñuy woo du ñu xamal ñoom comment ils sont fiers de nu parce que dañuy génne nañ leen ci lu bari ci yoo xam ne ay problèmes yoo xam ne dañ ciy nekk nekk ci ay gudd yu xaat vraiment ñun non am na yoo xam ne sax du ma ko wax ndax am na yoo xam ne nii yu am solo am solo yoo xam ne dañ koy def yu am solo sax yu am solo ci mission moo tax ñun chaque jour bu ñuy def dara affaire bu ñu koy def nii on le fait à cœur dañ koy def suñu xol bu naat ndax xam na ndax dañuy sentir ne ñun am na ñoo xam ne ñu ngi toog fu ñu toog fi leen fi leen toog am seen i am seen i naqar du ñu am ku leen ko fajal ku a wax ñoom ñu gis seen bopp si ñun. waaw parce que am na suñu vidéo bu ñuy def maag waaju baax wax ko ci problème mu marié quoi problème bi diggante jëkkër ak jabar ay sëy am na suñu benn gaan boo xam Amérique la nekk jour boobu ndeysaan waa ji dafa amoon na problème jabar ji ñu ñoom ñaar ñu xuloo trop ba ntara tas ba ntara tas ba nga xamee jabar ji neen mu ngi defar valisam sa waaye xam na ne bu continuer ci xuloo bi mën na xeex jabar ji quoi neen mu dem jël téléphone këf téléphone am rek daal di ne xaar mu seetaan pa baax man fi ma toll nii ci sama kii ñoom rek ñoo ma mën a soulager neen mu toog di ko seetaan nu mu toogee di ko seetaan vidéo bi même ñoom coowam ak jabar ji <laughs> ci loolu la doon kii quoi muy ree nee na nee na mu ree jabar ji ne moo tax woo téléphone vraiment envoyé ñu na xaalis bu bëri macha allah vraiment mënoon naa tudd ni ñun lii ñu def nii defar nañ sëy si foo xamante nii ko papam ba mënoon na caa tas te tasu ca moo tax li ñuy def nii képp koy def tamit nga koy def ak euh, gëm-gëm def ko bëgg-bëgg def ko ta xam na ne peut-être des fois nga def am ñoo xam ne da nga leen touché mais des fois nga def am ñoo xamante ni vraiment ça les faire plaisir ça daf leen di dimbali ci ñoom fi ñu nekk quoi franchement. waju bax ko ko wax da nga naan euh, panaise ku wax panaise ne waju waju waaju baax nekkoon ngeen fi nga xam ni moy euh, Sen TV wala Zik FM sax suma nexé est-ce que ba légui yéen a fa. wa fofu nak instant bi nekkatuñ fi quoi instant bi moom nekkatuñ Sen TV mais nak da am lutax tax nekkatuñ fa. du dañ ñoo dàq du dañoo démissionné du dara daa am ay affaire yu ndaw yoo xam ne rek moo tax ñu toog ñu stand by ak kuulagum quoi. foofu yéen contrat moo leen fa yóbbuwoon wala. waaw ñu ni fay ñu ni fay waaw chaque weer ñu fay ñu léegi nag contrat boobu nag ba tey moo nekk ci affaire bi moo nekk loo xam ne nii dañu waroon am lu ñu defak ak ñun te defuñu ko xam nga dégg télé la peut-être mën nga wax gars yi xam nga wax dafa garaaw am na yoo xam ne tamit ñun ñoo ko seq ñun ñaar lañ. ñoo seq contrat ak ñooñu des fois yooyu sax du ma ciy bëgg di xuus mais loolu la quoi mais Zik FM moom ak Sen TV amuñu benn problème man ko dañ fay woote amuñu benn problème mais xam benn contrat des fois loolu day am ci nit quoi ci liggéeyam da ngay bëgg lii après nga ne nañ def lii quoi pour ñu après ma lay posé rek ñu daal di tëj waxtaan bi comme temps bi léegi mu jeex lan la wa lan la Pape Nice dund ci théâtre loo xam ni ba léegi daf ko metti loolu mbaa am na. loolu. ah boo may de bàyyi ma ci xel mën na naa la xamal dara man de barki rasulilah maay dund non stress dund si théâtre nii lu mu metti non loolu je ne crois de loolu. comme tey jii nga dem benn tournage boo xam te ni dund nga fa loo xam te ni saa boo ko xalaatee rek day xam ne lii nii metti na la te war a ko dund. non mais man xamul tax damaa mbappat nag damaa xam nga théâtre bi aussi tamit c'est vrai que teel mos dugg yéen dugg mais moo tax dara daf ma cee jaaxul ndax lu ne laa def damaa dox dox ba jàmm gën ci dem dem dem spectacle dem seetaan spectacle jóge naa jàmm gën dox ba Pikine dem spectacle jóge naa joué naa spectacle ba pare te noonu metti moom sax ma faisait plaisir parce que man théâtre ndeysaan dafa ma neex quoi dama ko jugg ba pare mu neex man li may gis nii je suis un entrepreneur bâtiment man bâtiment laa def G15 dama def formation yor samay këyit man samay këyit ñu ngi sama kër man sama famille ñun ay bâtiment ñu sama papa la def c'est un ingénieur man samay mag ñu ngi fii g quinze ak euh, lycée de la Fosse ñoo fay jàngale kuy def bâtiment génie civil xam nga ko di ci fay waaw man dañ ci ñooñu laa jaar ma tarbiyu ko dem G15 dafa formation ak fi nga xam mooy lycée de la Fosse dem fa dafa benn formation boo xam ne nii allemand yi ñooñu ko defaloon ñu offrir ñu ko ñun en tant que les jeunes ñi nga xamante ne ni dañuy def bâtiment ci laa dem am fa benn attestation bi nga xam ne ni je suis un entrepreneur bâtiment sama kayit yaa ngi fee su neexoon suba suba ma dem entreprise bu nekk Sénégal ma dem déposer fa pour bâtiment mais yàlla moom ma nattu ma bëgg la théâtre di ko def moo tax man pour am xaw ma daal mais bon dund ma ci loolu franchement su ma waxee dëgg te yàlla tax dund loo xam ne daf may déranger quoi parce que franchement dund ma ko daal dund ma ko daal vraiment même bu ma ko jéemee lijjanti dund ko je ne crois ma ko.

moment bi ñu tolloon la ak fi àdduna tolloon la mais pour nii loolu je ne crois dinañ ci am béy si loolu yaakaar naa dina deñ quoi waaw yaakaar nañ am nañ yaakaar trop am nañ ci yàqin bu rafet na dina deñ waaw non ñaanu ma yàlla nag mu dal ci kenn ci artistes yi ñaanu ma yàlla mu dal xam nga nag nit aussi tamit des fois nit am sax alal même bu dul théâtre ak ci lu mu mënti nekk des fois muy am ay soucis ay problème loolu àdduna la nekk quoi loolu que mu soit même jaa xam ne des fois ñu ne loolu day am waaw léegi nag loolu nag ci monde bi yëpp la comme soit le le musicien théâtre kat bi maçon bi menuisier bi bu politicien bi ñëpp loolu ku ne mën na koo dal. mais nag vraiment ci monde théâtre ma soñoon daal loolu vraiment bañ a dalati kenn ñun tamit ñu am euh, mentalité xam ne fi ñu toll nii ci kii bi ñun ñoo mën a gérer léegi affaire suñu bopp quoi. pas que ñuy topp ci label yeeg ci maison yeeg yooyu waaw man daal vraiment foofu laa dal sama bopp topp toppatuma ko ci benn maison pour moom war a jàppale te non sama bopp laa jàpp ni maa war a jàppale sama bopp sama avenir ëllëg man maa ko war a gérer sama bopp parce que affaire yi léegi moom ñun xam nañu yoon wi waaw. lan ngay tàggatoo ak ñi nga xam ñu ngi suivre à travers euh, Torino Media TV.

vraiment pour ñëw jàkkaarloo yow vraiment Pape Tourno yàlla yàlla defal jàmmam yokk ko bu baax yàgg yokk xéewalam lépp projet bi mu bëgg rek ak lii nga xam moom la sumb ànd ceeg ñëpp yàlla teg ci loxo jàppale ko ba lépp mu bëgg rek maa ko fi incha allah. képp koo xam ne ba nga jàpp ci sponsor yi nga xam ne mooy Tourno Média TV mën nga woote au 78 nga def 375 41 42 boo ci wootee di nga jot suñu